jóge ci bateau bu ni mel ay palonnier élévateur defi saaku soble ba fees tegu ci terre-plein bu poorum ndakaaru bile. ci kanamu directeur général bu port autonome de Dakar Mountaga Sy opération bu ni mel ci anam ba mu gënee. dañu doon euh, tàggat suñu bopp ci wàllu port parce que xamoon nañ ne campagne importation oignon day ñëw depuis trois semaines ñu ngi doon xaar navire ñu ñëw. lii mooy li ñu préparé. ak le ministère du commerce et les autorités pour mën a porter yenu ci anam gu am solo campagne bi oignon bi démarré. mu di juróom-ñaari tonu soble yoo xam ni daal dina jóge foofee ci Hollande. démb la ñëw ci guddi à vingt heures commencé. gaa yaa ngi jël client yaa ngi nii ñu ngi jël waa Touba waa Fatick waa Kaolack ñëpp client yëpp a ngi taxaw di jël. bii soble jëm ci marché bi nga xam ni jamono jii njëgu soble gi daal dina yokk lool. waaye kilifa gi ñu dénk lépp luy régulation bu marché public fii ci Sénégal di am yaakaar ni dana jeex balaa yàgg. vraiment la question de la disponibilité du produit mooy li nga xamante ne ni moom mooy oignon bi mu accessible ci sénégalais jël nañ ko en charge pour que sénégalais yi wax dëgg fa yàlla li nga xamante ne ni mooy cherté bi ñu noté ci prix bi mu mën a wàññeeku. ñuy ndëgëndiku beneen bateau soble bu war a ñëw ci bi suñu dëgg dëgmaa la. waaye ba tey njiital port bi lay pare ngir jël bépp matukaay ngir mu agsi ci anam bu mucc ayib. dañu organiser wu de telle sorte que amul benn bateau tey bu yeb ceeb blé suukar diwlin ak ñoom seen boo xam ne mu ngi ci géej gi te mënul costé dañu am ay quai yoo xam ne dañ ko préparé. mu mel ni kon lu toll ci fukki junni ak juróomi tonnu soble dina njëkk si ci marché yu Sénégal mu di loo xam ni mën naa saafara seeraayu ko soble gi nga xam ni am na jamono jile. ci bu ni mel port autonome bu Dakar di dugal loxooma ci wàññik njëgu dund gi ginnaaw ba mu sécuriser ab stock bu toll ci 600 000 tonnes ceeb at mi